ginnaaw génnuk njiitu Pastef lile ni ki démb doon def ab entretien spécial ak waa groupe yi moom Ousmane Sonko ci la jotoon na addu ci gise bi nga xam ne jotoon na ko gise ak Idrissa Seck moom nag na mu ca waxee dafa mel ni sax neexul njiital parti bii di réew mi di Idrissa Seck ba tax na dafa daal di génn daal di koy weddi ni ki léegi rek la daal di génn moom Idrissa Seck di xam le ni déglu naa bu baax a baax sama frère bii di Ousmane Sonko muy wax lu dul dëgg ci ndaje bi nga xam ne doxoon na sama digganteeg moom ci la vingt 27 gële weesu jamono jooju mu naan mënuma woor ndax sama wér-gu-yaram mayuma ko loolu sax nag moo tax ma yéex a wàcc ngir gisante ak yow ci suuf boobule nga xam ne bi mu wàccee di waxtaan ak man man Idrissa Seck nemmeekuwuma sax nag ne moom mii yaramam dafa xaw a sutante ndax maa ngi gis ci moom ne mu gi en forme dara mettiwu ko loolu man gis naa ko ci moom waaye nag waxam ji muy wax seetu ci yàlla ndax nag lu ci bare bari dafay tappale rek di wax wax joo xam ne dara ci amul waaye daal li ma koy ñaan rek mooy mu wax loo xam ne moo am moo gën fuuf muy wax loo xam ne amu ci li ma ko dégg muy wax yëpp dara amu ci te itam amut lenn loo xam ne dëgg la ci kàddoom yooyu le moom Idrissa Seck nag daal dinay weddi Ousmane Sonko mi génn démb di xam le moom ak Idrissa Seck seen ndaje moomu le sax daanaka bugg ko woon gis waaye àqu jullit ak itam xol bu rafetam moo tax mu mujj wàcc daal di koy gis ñoom ñaar ñu daal di toog waxtaan waaye li Idrissa Seck wax amul ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngi weddi sa moroom ginnaaw bi Idrissa Seck njëkkee génn wax Ousmane Sonko génn weddi ko Idrissa Seck itam weddi na ko fasaasa moo tax ñu bari di samp aw laaj fan la dëgg gi féete yàlla rek mooy ki xam ak ñoom ñaar ña fa daje woon